sëriñ góor mag juufa sëriñ góor mag juufa mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1886 ci dëkk bu ñuy wax nag jati juufa jati nag mi ngi ci suuf yi nag di kajoor ci wetu dëkk bii nag di meewaan ci département nag bu tiwaawoon dëkk bii nag la sëriñ góor mag juuf feeñe jamono nag ci atum 1886 di doomu soxna na bu mbaay ak sëriñ suleymaan juufa moom sëriñ góor mag juuf nag bi mu feeñee jamono ñi ngi ko gën a xam nag ci sëriñ góor mag say turu waajuroom wii nag di soxna seyna bu mbaay nag lañ ko doon dàkkantele am na ñu bokkal nag soxna seyna bu mbaay ak sëriñ Souleymane Diouf ñu man cee ràññee nag sëriñ Cheikh Diouf nag bu njaareem ibnu soxna Seyna bu Mbaay ibnu sëriñ Souleymane Diouf sëriñ Ousseynou Diouf nag bu Mbooro ibnu soxna Seyna bu Mbaay ibnu sëriñ Souleymane Diouf soxna Asiyatu Diouf bu kër Bakary Sarr bintu soxna Seyna bu Mbaay bintu sëriñ Souleymane Diouf soxna Fatimatu Diouf bu Saareen bintu soxna Seyna bu Mbaay bintu sëriñ Souleymane Diouf ak beneen soxna Fatou Diouf bu Madina Bey bintu soxna Seyna bu Mbaay bintu sëriñ Souleymane Diouf ak moom sëriñ góor mag Seyna bu ibnu soxna Seyna bu Mbaay sëriñ Souleymane Diouf juróom benn nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy juróom ñaara moom sëriñ góor mag nag bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram nag sëriñ Souleymane Diouf rakkam nag sëriñ Mor Diouf jati nag la ko joxoon booba nag tombeeg itam nag sëriñ Mor Diouf jati jóge nag ci loxoy ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci atum 1891 nag la jot ngërëmam mu del siwaatoon nag ci dëkk boobu nag di jati Diouf taxawaloon fi nag daaray alxuraanul karim ci daaray alxuraanul karim jooju nag ci la jàngale nag mii ginnaaw bu mu ko fa téyee nag ay at la ko jël nag jébbal ko nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiima bi mu koy jébbal nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim moom sëriñ Mor Diouf Diatty mi ngi doon xamal nag sëriñ góor mag Diouf mii sant naa la gërëm naa la fa ma doon liggéeyalee nag sama boroom di jàmbaari lislaam nag ju ñuy wax nag Cheikh Ahmadou Bamba falaa la bëggoon a yóbbu itam na nga dem liggéeyal sa boroom sëriñ góor mag Diouf nag di xamal waajuram nag sëriñ Mor Diouf Diatty man loo ma digal ma def ko foo ma yóbbu itam nag ma dem fa ci la jëlee nag sëriñ góor mag juuf mii moom sëriñ Mor Diouf Diatty indil ko nag ku baax baax ki sëriñ tubaa seexul xadim bi mu ko joxee nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim la ko seexul xadim nag jébbal maam Cheikh na Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ginnaaw bu mu fa toogee ab diir nag la seexul xadim nag wooluwaat nag maam Cheikh na Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru di ko xamal ne tuut tànk yooyu nag nekk ci yow laa soxla woon nag lu tollu juróom benn tuut tànk ginnaaw bu ko maam Ceerno nag tànnalee nag juróom benn tuut tànk nag ci njaboot gi sëriñ góor mag Juuf mi nag ci juróom benn ñooñu nag la bokkoon ginnaaw bu leen maam Ceerno nag jébbalee seexul xadim la seexul xadim nag sàkkuwaat nag ci maam Cheikh na Ibrahima Faty Mbacke Mbacke ndaamal daaru mu fob leen nag jébbal sëriñ Mor Kuna Mbacke ngir sëriñ Mor Kuna Mbacke nag def ci ñoom nag alxuraanul karima mu wéy nag des nag ci loxoy sëriñ Mor Kuna Mbacke nag di jàng alxuraanul karim ba ni fi Cheikhul Khadim bàyyikoo nag dem ci géej gi ci loxoy sëriñ Mor Kuna Mbacke nag la wéy nekk ba ni sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag jógee ci géej gi bi Cheikhul Khadim nag jógee ci géej gi dem nag ci réew mii nag di gànnaar sëriñ Mor Kuna Mbacke nag demoon na gànnaar nag fekki ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci yoon woowu nag bokkoon ginnaaw bu ñu eggee gànnaar nag laataa ñuy gis ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim la sëriñ ku Kuna nag doon xamal nag sëriñ góor mag Juuf mii na delluwaat nag ci réew ma wut nag ab yóbbal boo xam ne nii saa bu leen fi Cheikhul Khadim téye lu mu yàgg-yàgg nag danañ ci mën a jëfandiku bi sëriñ góor mag mii nag bàyyi koo gànnaar nag ñëwaat Sénégal ci diir bi mu nekkee Sénégal nag di wut nag lool ko sëriñ moor ku na mbàkki nag doon wut ci diggante boobu nag la tombeek Cheikhul Khadim jóge gànnaar nag ñëw ci yéen bi mu ñëwee nag wax nañ na waajuróom wu jigéen moo jaay tim nag ay nagam jox ko sëriñ góor mag juuf sëriñ góor mag juuf nag waajee nag bay dellu nag gànnaar ba tolloog nag ci dëkk bii nag di ndar géej ci kër gi mu fanaanoon la ko mag ma nag doon xamal ne bu fekkee ne nag gànnaar nga jëm ka taxoon nag ngeen bëgg faa dem daa mel ne daal jóge na fa ci la sëriñ góor mag juuf mii nag laajtee nag fan la seexul xadim nekk ñu di ko xamal ne daal mu ci dëkk bu ñuy wax ci yéen jolofa ci la sëriñ góor mag juuf nag deme nag ci dëkk boobu nag ca yéen jolof fekki nag ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xadima ginnaaw bu mu eggee nag dëkk boobu nag di ca yéen jolofa ginnaaw bu mu eggee nag la fekk itam nag sëriñ Mor Kuna Mbàkke seexul xaddim nag yeewi ko bi mu yëgloo nag ba seexul xaddim gis ko mu di ko xamal ne daal sëriñ Mor Kuna Mbàkke nag laa àndaloon nag dem gànnaar bi ñëwee gànnaar damaa yónni nag Sénégal bi ma ñëwee nag ba tolloog ndar lañ may xamal ne nag jóge ngeen gànnaar yéen a ngi nag ci dëkk bii nag di ca yéen loolu itam nag moom moo taxoon itam nag ma ñëw bi ma fi ñëwee nag fékkuma ko fi la ko seexul xaddim nag doon xamal ne nag sëriñ Mor Kuna Mbàkke bokk na itam nag ci ñi nga xam ne nii nag gërëm naa leen nag bañ dellu waaye yow nag damaa bëgg itam nag nga toog nag ci sama sama wet mu wéy nag des nag ci loxoy sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag ci dëkk boobu nag di ca yéen jolofa ba ni Seexul Xadiim nag jógee ca yéen jolof ñëw nag ci dëkk bii nag di njaareem bi Seexul Xadiim nag di ñëw njaareem àndoon naag nag sëriñ góor mag juuf mii bi mu ñëwee njaareem dem nag di ñëw njaareem Seexul Xadiim itam nag yabaloon na ko nag ci sëriñ Muhammadu dem ngir mu jàngal ko nag lenn itam nag ci téere xam-xam yi bi sëriñ Muhammadu dem ñëwee njaareem itam Seexul Xadiim itam nag boole na ko moom ba tax na itam nag jaar na itam nag ci dem nag ci wàllum njàngum xam-xam ginnaaw yabal nag njeng gay ci ku ñuy wax nag sëriñ baara gay ci ñii nag la jaar nag ci wàllum njàng muy sëriñ moor kuna mbàkke sëriñ mouhamadou dem bu njaareem ak sëriñ baara gay bi mu ñëwee njaareem nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim sëriñ balla faali jeng nag la ko sëriñ tuubaa seexul xaddim boole loon nag ngir mu muritoo fa ci tool yi ko sëriñ balla faali jeng yóbbu woon mi ngi ci suuf si nag dundu la ci tool yi ñuy wax nag daqaaru ngule ci tool yooyu nag la sëriñ balla faali jeng nag yóbbu woon sëriñ góor mag mi ngir nag mu tarbi ñoom itam nag ñu ngi ci suuf soosu nag di ndula ñaari at nag la def mu delluwaat nag ci dëkk boobu nag mu cosaanoo nag feeña fa jamono di jati juufa nag waajuróom nag wi ko yóbbu woon ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag bam dem itam nag ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiima boobu itam nag mi ngi fekk nag waajuróom nag sëriñ Moor Juuf jati sanc nag ay tool ci wetu dëkk bii nag di mbooro tool yi nag moom lañ doon wooyee daaru juufa mu nekk ak nag waajuróom nag sëriñ Moor Juuf jati ab diir nag ci dëkk boobu nag di daaru juufa juufa wala ci tool yooyu nag di daaru juufa ginnaaw bi nag la ko sëriñ moor juuf jati di ko xamal ne nag moom sëriñ góor mag juufa na delluwaat nag di jati juufa te bu demee nag mu yeesalaat kër ga nag te nekkit nag ci dëkk ba nag yilif nag dëkk ba ginnaaw bu sëriñ góor mag juuf nag wéyelee nag ndigalul waaw juróom wow di sëriñ moor juuf jati dellusiwaat nag ci dëkkub cosaanam boobu nag di jati juufa ci këru cosaan gi ab diiritim nag la fa def ànd tuuti nag lu tolloo ko ko nag tuubaa tofi juufa ci tuubaa tofi juuf googu nag la wéy nekk nag ba ni Ceesa ci dëkk boobu nag di Touba to fi juufa ba mu fa nekkee nag liggéeyal na fa nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim nag lu takkoo takkoo takku moo xam ci ay addiya mu ànd koog nag ay góor yàlla nag yu mu doon liggéeyal ndool nag ngir jëmmi sëriñ Touba Seexul Xadim ci dëkk boobu nag di Touba to fi juufa ci biir góor yàlla yam àndaloon nag ñu mën cee ràññee ku ñu wax sëriñ Seydou Ndooy ci dëkk bii nag di Daaru Ndooy sëriñ Moor Wàdd ci dëkk bii nag di Daaru Ndooy sëriñ Ousseynou Ndooy ci dëkk bii nag di Daaru Ndooy sëriñ Al Assane Gueye ci dëkk bu ñuy ñuy wax Léona Ibrahima Mbay ci dëkk bu ñuy wax Mirina Fall sëriñ Jibril Njaay ci dëkk bu ñuy wax Ndobel sëriñ Magóor Mbay ci dëkk bu ñuy wax Jatti sëriñ Mbay Xew Mbay ci dëkk bu ñuy wax Jatti sëriñ Simba Njaay ci dëkk bu ñuy wax Rimba sëriñ Mbay Ndax ci dëkk bu ñuy wax Njànga sëriñ Góora Géey ci dëkk bu ñuy wax Màkka sëriñ Mbàkke Ndax ci dëkk bu ñuy wax Léona sëriñ Demba Biram Juuf ci dëkk bu ñuy wax Masar sëriñ Abdou Issa Fall ci dëkk bu ñuy wax Masar sëriñ Demba Biram Juuf ci dëkk bu ñuy wax Masara sëriñ Abdou Issa Fall ci dëkk bu ñuy wax Masar sëriñ Dee Samba Njaay ci dëkk bu ñuy wax Jama sëriñ Daawda Cuun Thiam ci dëkk bi nag di Daaru Ndooy sëriñ Abdoulahi Ndiaye ci dëkk bu ñuy wax Daaru Ndooy sëriñ Moodu Mbay ci dëkk bu ñuy wax Jiñaax sëriñ Biram Pend Sill ci dëkk bu ñuy wax nag Jiñaax sëriñ Ngom Sill ci dëkk bu ñuy wax nag Jiñaax sëriñ Maam Balla Gay Thiam ci dëkk bu ñuy wax Guy Sàmba sëriñ Maawa Ndiaye ci dëkk bu ñuy wax Daarul Xuddoos Alaaji Useynu Faal ci dëkk bu ñuy wax Kër ma góor sëriñ Mbakke Mbay ci dëkk bu ñuy wax Daaru Juuf sëriñ Laba Mbay ci dëkk bu ñuy wax Jatti sëriñ Masamba Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay góor yàlla nag yum ànduloon di liggéey na ngir jëmmi sëriñ Seexul baree bari nag yum taxawaloon nag ci nekkinam bi cheikh Modou Moustapha Mbacke nag goree tayif moom itam nag taxawaloon na nag daara ci dëkk boobu nag di taayifa waaye daara ji nag mujjul dox na daara itam bu ñuy wax kër Arona Ndiaye nekk itam nag ci wetu Pire waaye daara joo itam nag ginnaaw bu mu fi bàyyikoo itam nag nga xam ne nii nag fa la féete woon fi juufa nekk itam nag ci suuf si di jati ci daara yii nag la nekkoon nag di liggéey ànd ak mbooloo na daaray alxuraan joo xam ne nii itam nag moom la yor yoroon nag di jàng ak a jàngale daaray alxuraan ja nag ñu mën cee ràññee itam nag mbooloo mu takku nag ñu fa jaar ñu mën cee ràññee nag sëriñ basiiru cuun sëriñ cheikh soxna cuun sëriñ abdou karim juuf sëriñ ibrahima mbàkke juuf sëriñ góora géey màkka sëriñ mbàkke daaru juuf sëriñ muudu taala wadd ci dëkk bu ñuy wax daaru ndooy sëriñ cheikh ndooy ci dëkk bu ñuy wax daaru ndooy sëriñ maawa njaay ci dëkk bu ñuy wax daarul xuddoosa sëriñ góora mbay ci dëkk bu ñuy wax mbayeen sëriñ useynu faal ci dëkk bu ñuy wax kër maam góor sëriñ ibrahima géey ci soxna ñànge wàdd sëriñ ndonga ci dëkk bu ñuy wax guy sàmba sëriñ kalta ndong ci dëkk bu ñu wax kër aale naar sëriñ cheikh jóob ci dëkk bu ñuy wax masar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu jaaritim nag ci daaray alxuraan jooju mu wéy nag topp nag ci ginnaaw cheikhul xadim ba ni mu mujjee gis nag sëriñ tubaa cheikhul xadim mu ànd ak nag doomu sëriñ tubaa cheikhul xadim ba di cheikh mamadul moustapha mbàkke jox ko léppam bi cheikh mamadul moustapha mbàkke sancee itam nag dëkk bii nag di taayifa moom itam nag ci mag ñi sancoon nag wur taayif itam nag ci la bokkoon dëkk boobu mu sancoon nag ci ginnaaw itam nag dafa mujj gént nag ginnaawam ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke mu fob léppam nag jébbal ñaareelu xalifa sëriñ tubaa cheikhul xadima di cheikh mohamadul faadal mbàkke ci xilaaf ak cheikh mamadul faadal mbàkke nag la génnee àdduna ci atum 1961 bi mu ànd ak cheikh mamadul faadal mbàkke lépp loo xam ne nii nag moom moo nekkoon nag liggéey bu mu cheikh mamadul faadal mbàkke nag daa liggéey daana ci ànd ak moom itam moom sëriñ góor mag juuf mi ba tax na itam na kenn mënu ko ci woon ni mu amee woon nag ak njàmbaarte nag ci ron cheikh mamadul faadal mbàkke ràññeeku lool nag ci liggéeyub jumaa ji tax am na ci sas yoo xam ne nii ginnaaw nag bu mu ko daa indi nag ci bu ko Cheikh Mamadou faadal Mbacke nag daa laaj mag ñi ci gaawaay nag bu mu daa gaaw nag ci moom moo taxoon nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag dolli waatoon nag aw sasam di ko laaj nag téeméeri junni nag ak ñaar fukk ndax pastéefub sëriñ góor mag juuf nag ci jumaa ji taalibeem bu ñu daa wax nag sëriñ Babacar Seck moom la daa yabal nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bokkoon na itam nag ci jëwriñam yu mag yi am na ci sas woo xam ne nii nag biñ koy yóbbu doomam nag sëriñ Abdou Khadre juuf nag moo ko yit nag Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke ba tey nag ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ci ànd boobu mu àndoon ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di liggéey ngir Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Cheikh Mamadul Faadal itam nag joxoon na ndigal Cheikh ma mu koy mi la ko boolee loon nag moom Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ba tax ne biñ àndee Poroxaan nag yeesal barab ba nag ba noppi pavillon bi nga xam ne nii nag moom mu muuroon nag barabu soxna si wala tiise bi nga xam ni nii nag moom lañ muuree woon barabu soxna si ginnaaw buñ liggéeyee barab bi nag ba noppi Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke tiise boobu itam nag sëriñ góor mag juuf mi itam nag la ko joxoon ginnaaw bu ko sëriñ góor mag juuf nag yóbboo nag ci dëkk boobu nag di Tuubaa to fi juufa denc ko fa bi taalibeem bii nga xam ne nii nag jàmbaar la woon nag ci ronam génnee nag àdduna muy sëriñ Daawuda Cuun pavillon boobu nag la sëriñ góor mag juuf nag goo xam ne nii nag sëriñ Daawuda Cuun nag jàmbaare woon na ko nag ci ron sëriñ mi tax na nag bi mu génnee àdduna pavillon boobu ko Cheikh Mamadul Basir joxoon nag ci ànd googu ñu àndoon nag poroxaar nag doon yeesal nag barabu soxna si la fob nag dencaale ko nag taalibeem boobu nag di sëriñ Daawuda Cuun mu doon seedeel nag mag ñi di leen wax ne nag sëriñ Daawuda Cuun mi liggéey nag gumma liggéeyal lott nag nag ci gërëm ko moo tax nag ma fob pavillon bii nag ñu dencaale ko ko moo tax nag pavillon boobu nag taalibeem bu ñuy wax nag sëriñ Daawuda Cuun nag lañ ko dencaale ba tey digganteem ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom sëriñ góor mag juufa addiyee yu takkoo takkoo takku nag la daa yit Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke taalibeem bu ñuy wax sëriñ Babacar Seck nag moo doxoon nag digganteem ak na sëriñ Babacar Seck nag ay yooni yooni yoon ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke sax daana tooñe nag sëriñ Babacar Seck saa bu ko gisee di ko wax nag mbay ginaar ndax addiyey ginaar yu takkoo takku nag yu sëriñ góor mag Juuf nag daa indil nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ba tey nag ma ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag moo ko booleeg soxna Faati Ja Mbacke mi taawu sëriñ Touba Seexul Xadim di ko xamal na itam nag damaa bëgg itam nag nga bokk itam nag ci ay càmmiñam ci lépp loo xam ne nii nag war na ci moom itam nag nga di ko def ba tax na itam nag loolu Mbacke loolu moom sëriñ góor mag Diouf mi itam sàmmoo nandiwulul cheikh Mamadul Faadal Mbacke loolu ba tax na nag soxna Fat Ja ci biir kërug daaru xuddoos gi itam nag ak kees itam nag la ko fa wutaloon sëriñ góor mag Diouf itam nag amoon fa itam nag am néeg ak wàccuwaay bu yaatoo yaatu lool itam nag tax na bi mu génnee àdduna njabootam gi nag wéy itam nag di des di dal itam nag kër soxna Faati Ja Mbacke soxna Faati Ja Mbacke itam nag moo waxtaan ak ñoom sëriñ Moor Jaara Diouf mi di leen xamal ne àdduna nag day dox te itam nag ëllëg bu ma fi bàyyeekoo njaboot gi may wuutu mën naa am itam nag lii ma nangu itam nag duñ ko nangu moo taxoon itim nag ma bëggoon leen a jox nag suuf su yaatoo yaatu nag ci Touba ngeen nekk fa te nekkal ma fa soxna fat ja nag jël ci Touba nag lu tolloo ko ab loo loo bi nag moo nekkoon ci Touba daarul xuddoosa ci ginnaaw nag ñaari étage waaye loo boobu itam nag njaboot gi dëkkee nañ ko ay at ñàkk féete nag gu ñàkk féete Touba tax na lu ëpp nag ca loo ba itam nag ñu ñàkk ko jënd kër sax nag moom lañ dese itam nag ca loo ba kër googu itam nag fa la ñuy dal nag màggal ba nëgëni ba tey nag seen digganteeg soxna fat ja Mbàkke soxna fat ja nag daana ko wax ne poroxaan jee nga maam ja nag soxna jaara it

ngeen topp nag ki fi nekkal nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim loolu ma waral itam nag njabootuk sëriñ góor mag Juuf ku fi nekkal sëriñ Touba Seexul Xadiim nag ci ginnaawam itam nag la ñuy topp mu nekki nag ku jaxasoo woon ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ba tax na tudde na sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo doom mu nekkoon nag itam nag ku jaxasoo sëriñ Mouhamadou Dem bu njaareem sëriñ Mouhamadou Dem itam nag jàngal na ko ci ndigalu sëriñ Touba Seexul Xadiim ginnaaw bu mu jàngee ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem liggéeyal sëriñ Touba Seexul Xadiim nag ba jot ngërëmam ginnaaw bu mu ñibbee nag ci dëkk bi nag di Touba to Juufa ba tax taxawal kër lam fayee nag sëriñ Mouhamadou Dem mooy fob doom nag jébbal ko ko doom jooju mu jébbaloon nag sëriñ Mouhamadou Dem ngir ak kóllëre mook sëriñ Mouhamadou Dem nag am nañ na ku ñuy wax soxna ummi dem ak ku ñuy wax nag soxna Faati Ja Dem mu nekki nag ku jaxasoog maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Moor Juuf Jati bi mu ko jébbalee Cheikhul Xadim Cheikhul Xadim itam nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag la ko jébbaloon mu nekkoon itam nag ak ku jaxasoog sëriñ Moor Kuna Mbàkke ndax sëriñ Moor Kuna Mbàkke nag moo ko jàngal nag alxuraanul karima mu nekki nag ku fonk sëriñ Moor Moor Kuna Mbàkke sëriñ Moor Kuna Mbàkke nag la àndal dem gànnaar sëriñ Moor Kuna Mbàkke itam nag moo tax mu gis sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëriñ Moor Kuna Mbàkke itam nag moo ko jàngal bu yaatoo yaatoo yaatu nag la joxoon jàmbaari Seexul Xadiim jooju nag di sëriñ Moor Kuna Mbàkke tudde na doom sëriñ Moor Kuna Mbàkke moo toogoon sax ñaareelu xalifaam ñu gën koo xam nag ci sëriñ Ngañ Juuf sëriñ Moor Kuna Mbàkke mii nag di léppam nag la ko tudde mu nekkoon itam nag ak ku jaxasoog Seex Masàmba Mbàkke ñoom ñaar bokkoon nañ nekk nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim te sëriñ Masàmba Mbàkke itam gane ci dëkk boobu nag di Touba Tofi Diouf kullëre googu mu amoon ak Cheikh Massamba Mbacke tudde na sëriñ Massamba Mbacke doom ba tey digganteem ak sëriñ Massamba Mbacke doomu baayam bi nag di sëriñ Mor Mati Diouf bi leen sëriñ Mor Diouf jati nag boolee nag jébbal ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim moom sëriñ Mor Mati Diouf mi ci loxoy Cheikh Massamba Mbacke nag la mujjoon mu nekk nag ku jaxasoo sëriñ Ibrahima Lo di rakki sëriñ Massamba Mbacke bi mu génnee àdduna ak njabootam itam nag denc ko nag ci wetu sëriñ Ibrahima Lo ndax ak kullëre nag gu ñu amoon mu nekk nag ak ñëwee njaareem nag ba a ba tax na nag sëriñ bàlla faali jëng itam nag moo ko tarbiya seexul xadim nag doo koo gërëm loolu itam nag taxoon na cër bu mu nekkoon itam nag ak ku am jaxasoo ak sëriñ maalik baasin si ak sëriñ bi mu nekkee nag ci loxoy sëriñ bàlla faali si nag di ndula sëriñ moor xari si ak sëriñ maalik baasin si itam ñi ngi woon itam nag ci suuf soosu nag di ndula loolu itam nag tax na amoon nañ nag ak jaxasoo nag bu yaatoo yaatu nag ci diirum ñaari at nag yim def nag ci loxoy sëriñ Balla Faali Jeng nag ci suuf soosu nag dundu la kóllëre googu mu amoon nag sëriñ Malick Basin si ak sëriñ Mor Xari si sëñ Mouhamadou Haza si nag na wéel nag kóllëre googu ci doomu sëriñ góor mag Diouf bii di kim faye Cheikh Massamba Mbacke di sëriñ Bàcc Diouf mu nekkoon itam nag ak ku jaxasoog sëriñ Mammoor Jaara Mbacke nag sëriñ Mammoor Jaara Mbacke la ko tuddee mu nekkoon itam nag ak ku jaxasoog sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Bousso bi Bousso tudd na sëriñ Ibrahima Bousso doom jabootug sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim li ko dalee nag ci Cheikh Modou Moustapha Mbacke Mbacke ba ci cheikh Mourtada Mbacke ñëpp rek la amaloonu jaxasoo cheikhul xadim nag la doon xoole ci ñoom njaboot gu jigéen gi li ko dale nag ci soxna Fadja Mbacke ba ci soxna Maymunatu Mbacke noonu itim nag la amoon itim nag ak jaxasoo ak ñoom cheikhul xadim rek la leen doon xoole moom sëriñ góor mag Juuf nag am na ay soxna nag yum dëkkoo woon ci biir soxna yam dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee nag soxna Adama Juuf moo soxna Adama Juuf nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag kam faye woon nag Mamor Jaara di sëriñ Mamor Jaara Juuf ak soxna Assou Gueye Juuf ak kam faye woon ndaam abdourahman loo di sëriñ ndaam abdourahman juuf yoraatoon na baneen soxna nag muy ku ñuy wax soxna mbay mook soxna mbay itam nag am nañ ak njaboota muy ku ñuy wax nag sëriñ ngañ juufa di kim faye woon nag sëriñ moor penda mbàkke sëriñ tuubaa juufa di kim faye woon nag sëriñ tuubaa cheikhul xadima sëriñ murtada juufa di kim faye woon nag cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuubaa soxna maam busa nag na baneen soxna nag muy ku ñuy wax soxna assumbooj mook soxna assumbooj itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee nag nag kam faye woon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke di sëriñ Abdou Xaadir Diouf sëriñ Muudu Xuddoos Diouf ak sëriñ Ibrahima Bousso Diouf di kim faye woon nag sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Bousso be Bousso yoraatoon na baneen nag muy ku ñuy wax soxna Adama Diop mook soxna Adama Diop itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mën ràññee nag kam faye woon Cheikh Massamba Mbacke di sëriñ Bàcc Diouf mi toog nag ab toogaayam jamono ji sëriñ Sidi Góor Diouf soxna Awa Diouf di kim faye woon nag waajuru Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di soxna Awa Bousso ñetti bant yi nag la soxna Adama Adama Diouf am ak sëriñ góor mag Diouf ngir xamale leen nag soxna yooyu mu dëkkoo woon nag njaboot yooyu mu ci am nag ñoom ñooy ñan doomam ji nag di soxna maam Bousso Diouf di kim faye nag soxna jaaratullaahi bi mu matee dem kër sëriñ Mouhamadou dem bu njaareem nag la ko jébbaloon mook sëriñ Mouhamadou dem bu njaareem nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna ummi dem ak soxna Faatija dem doomam ji nag di soxna Awa Diouf di kim faye woon nag waajuru cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ góor a njaay ndobin nag la ko joxoon mook sëriñ góor a njaay ndobin nag am nañ ak farata doom ji nag di soxna Astou Gueye jot jotta dem kër laataa muy dem kër nag la génn àdduna njaboot gii ñu leen tuddal nag ñooy lenn tim nag ci sëti sëriñ bi mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Touba Toufi Diouf di liggéey nag di it sëriñ Touba Seexul Xaddim ginnaaw Seexul Xaddim nag mu jaayanteeg Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ginnaaw Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag mu jaayanteeg Cheikh Mamadul Fadal Mbacke ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Fadal Mbacke nag la génnee àdduna laataa muy génn àdduna nag ci dëkk boobu nag di Toufi Diouf ab feebar nag moo ko daaneel mu jógee fa nag dem nag ci dëkk bii nag di ba jooju nag mu fajaroo nag ci dëkk boobu nag di Touba Tufi Juufa bi muy dem nag doomam sëriñ Touba Juuf nag la àndaloon ak taalibeem sëriñ Babacar Seck bokkoon itam nag ci jëwriñam yu mag yi ak ku ñuy wax nag sëriñ Maawa Njaay ak turandoom nag bu ñuy wax Góora Mbaay fajarook àllarba nag lañ jóge nag ci dëkk boobu nag di Touba fi Juufa dem nag ci dëkk bii nag di Ceesa ba set nag di alxemisa mu yónni nag doomam nag sëriñ Touba Juufa damaa bëgg na nga dem nag ci Cheikh dul Faadal mbakke di ko xamal ne nag sagar nag day jegeb sën te xamal ko ne itam nag alxemis bii ñu jëm dinaa ko gane si nag nag mu waajal ma bi sëriñ Touba Diouf nag ñëwee nag ci ndigalul waajuram sëriñ góor mag Diouf mi xamal nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag lii nag lim xamalaatoon nag sëriñ Touba Diouf boo demee nag nga xamal sa waajur ne ko yónneen ba nag jot naa ci waaye nag bu alximisee nag maa ngi koy teeru alximis jooju nag mu waxoon nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag ne ko ci laay ñëw Touba ci guddik nag àllarba ji ko jiitu ci la génn àdduna nag ci Thiès ci kër gi mu nekkoon nag di kër Idrissa Sarr sëriñ Idrissa Sarr moom nag moo xëy dem nag ci commune bu Thiès ñu abal ko oto nag ngir mu mën a gunge nag sëriñ góor mag Diouf mi ak ku ñuy wax nag sëriñ Omar Ndiaye abalaat ko itim nag oto moom sëriñ Idrissa Sarr nag mu luyee itim nag benn oto daa di dem nag dëkk bu ñuy wax kaw Kawsara Fall boobu nag Sërif Assane faal nag ma nga fa moom maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baawul na di ko xamal ne daal sëriñ góor mag Diouf mi dafa génne àdduna nag ci sama kër te itim nag ci mag ñi toppoon sëriñ Touba Cheikhul Khadim la Touba nag laa bëggoon nag mu dem fa ñu ko nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Sërif Assane Fall itim boole kook nag mbooloo mu takkoo takku ngir nag ñu gunge sëriñ góor mag Diouf mi Touba ñetti oto yi nag ñoo indi mbooloo mi biñ egsee Touba nag jébbal ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñu gunge woon sëriñ góor mag Juuf ker itam nag ràññee ma nga xam ne nii nag moom lañu leen teeroo nag ci dëkk bi biñ koy xelli wax nañ ne nag kaas ya mbooleem ku duggoon ca oto ya benn yoon nag lañ leen xellee ndoo ca kaas ya kaas ya nag dafa yemoon képp nag ci mbooloo mi àndoon nag sëriñ góor mag Juuf meew ma itim biñ ko xellee ci kaas ya itim nag dafa jeex te kenn naanul deseel kenn te kenn naanul itim di xaar sa moroom naan loolu itim nag woon dencub sëriñ góor mag juuf itam dañ koy waxtaane ba nëga ni sëriñ góor mag juuf nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk bii nag di ceesa ci bisub àllarba ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru diggu tabaski ci atu nag ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru diggu tabaski ci atu nag ci gàddaay gi dëppoo nag muy mercredi 10 ci atu 1961 mercredi ñu indi ko nag ci dëkk bu selli bii nag di Touba jébbaloon ko nag Mamadul Faadal Mbàkke mi nekkoon xalifa général nag dee murit jamono jooju cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag moo ko jullee ñu jébbal ko nag boroomam ci diggante ma Masamba mbakke nag ak sëriñ Ibrahima Lo suñ delloo nag ci mbind mii nag cheikhul xadim nag bindoon wala kàddu yi nag cheikhul xadim nag waxoon ci sëriñ góor mag say mii ci bi mu ko joxee ngërëm nag ci dëkk boobu nag di njaareem kàddu yii nag ñu leen di waaja a dégtal ñu ngi ko jële nak ci ku ñuy wax nag sëriñ góor a mareema juufa sëriñ góor a mareema juuf mii sëriñ cheikh juuf mi nga xam ne nii mook sëriñ góor mag say nag ñoo jigéen tem nekkoon nag ci loxoy sëriñ tubaa seexul xaddiim nag ci dëkk boobu nag di njaareem sëriñ góora mareema nag la nekkoon moo doon xamal nag njabootuk sëriñ góor mag juuf mii di leen wax ne kàddu yii ma leen di waaj a dégtal seexul xaddiim nag moo ko waxoon nag seen waajur ci bi mu ko gërëmee nag ci njaareem sëriñ góora mareema juuf nag mi ngi xamal njaboot gi ne kàddu yi nag mooy bi sëriñ tubaa seexul xaddiim nag gërëmee sëriñ góor mag juuf nag ba noppi mi ngi koy xamal ne làq nga nag tedd nga ci góor yàlla yi nekk na itam nag ku mat te fa ñuy matalee nag góor yàlla yi nekk na itim nag ku mat te fa ñuy tànnee nag ñi mat nag ci seen diggante ak seen boroomam nekk na itim nag ku dëgg ci digganteem ak boroomam nag buur bi ka wa taala làq na itim nag ak tedd nga ci digganteem ak boroomam wax jii nag la sëriñ góor a Mareema Juufa waxoon njabootuk nag sëriñ góor mag Juufa di leen xamal ne nag ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim moo ko waxoon nag seen waajur ñu teewlu ko bismillahi rahmaani rahim qaala la xadimu rasul tusamma góor mag say seex góor say seex góor say qad ustul kamaal seex góor say annaka kamaal wa zalta xaqan lil jalaal ay xalifaam nag nii la tëddee kam faye woon maam moor jaara di sëriñ maam jaara juufa moo ko wuutu nag ci atum 1961 ba ci atum 1999 ñaareelu xalifa sëriñ góor mag juufa ci atum 1999 la ba ci 2015 di sëriñ ngañ juufa sëriñ ngañ juuf mii nag nekkoon ñaareelu xalifa nag sëriñ góor mag juufa sëriñ moor ku kuna mbàkke nag lañ ko tuddee ñetteelu xalifa sëriñ góor mag juufa di kam faye woon nag cheikh masamba mbàkke mi rakki sëriñ tuuba cheikhul xadima di sëriñ mas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 àdduna nag di ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru diggu tabaski di ci fàttaliku nag waajuram wow nag mu mujjee gis nag ci bis boobu jàmm gën taayif nag ci ndakaaru nag la ko doon fàttalikoo ci teewaayu nag lenn itim nag ci ay taalibey waajuram wala nag ay soppey waajuram muy ku ñuy wax sëriñ Ousseynou Fall maam say Juufa sëriñ Abdou Aan sëriñ Géy ci diirum ñeenti at nag lañ ko def nag ci dëkk boobu nag di ndakaaru ci quartier boobu ko mujjee màggal nag ci dëkk boobu nag di ndakaaru ci jàmm gën taayifa ñu jóge fa nag màggal si Touba sëriñ Ousseynou Fall mi nga xam ne ni nag bokkoon na itam ci jëwriñu sëriñ góor mag juuf yi moo xamal nag sëriñ Masamba Juuf nag mi nga xam ne ni moom moo taxawaloon bés bi di ko wax ne nag nañ dem seeti sëriñ Moor Jaara Juuf mi nga xam ne ni nag mooy sama laaj ko ci ndigal ñu joxee ndigal nag ci bis bi ñu mën koo yóbbu nag ci dëkk boobu nag ju Tëfi Juufa ñépp itam bokk ko nag ñu di ko màggal bi sëriñ Masamba Juuf nag wéelee ndigalul sëriñ nu faal moomu ñu ànd nag dem seeti nag seen mag nag di seen xalifa waajur nag sëriñ Moor Jaara Juufa ñu eggee nag ca jataay ba sëriñ Moor Jaara Juuf nag mi ngi toog ak rakkam sëriñ Ngañ Juufa sëriñ Moodu Xuddoos Juufa ak lenn ci taalibe yi ginnaaw bu sëriñ Ousseynou Fall nag xamalee nag sëriñ Mor Diarra Diouf bis bii nag sëriñ Massamba Diouf mii nag di amal nag ca Ndakaaru jagleel ko nag wàcce kaamil nag bu muy defal sëriñ góor mag Diouf mii dañ doon laaj ndigal nag ci yow bu fekkee ne nag mën nañ ko cee am ñu yóbbu nag ci dëkk bi nag di Touba Toufi Diouf def ko nag bisub sëriñ góor mag Diouf ñun ñëpp itam nag ñu bokk bés bi ci la sëriñ Mor juuf nag geestu nag sëriñ Ngañ mi nga xam ne moo toppoon ci moom nag di rakkam di ko xamal na nag loo ci xam sëriñ Ngañ juuf nag di ko xamal ne nag bis bi itam nag am na solo waaye suñ mënoon xam nag bis bi nga xam ne nii nag ci la sëriñ góor mag Juuf giseeg seexul xaddim ci céyeen jolof nag suñ mënoon am bis boobu nag moom mooy gën ginnaaw nag bu ñu xamee ne nag xamuñu bis boobu ci la sëñ Ngañ Juuf nag doon xamal nag sëriñ Moor Jaara Juuf mi ko laajoon xalaat di ko wax ne nag kon nag bis bi nga xam ni nag moom lañ xam muy ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru diggu tabaski te sëriñ sàmb Juuf mi nag di ko amal nañ jël bis boobu nag yóbbu ko nag ci Tuubaa Toffi Juufa di ko fàttalikoo nag suñu waajur wa di sëriñ góor mag Juufa lii nag moom moo waral bis bi nag ñu jëlee ko Ndakaaru indi ko nag ci dëkk boobu nag di Tuubaa Toffi Juufa ci fàttaliku ko nag sëriñ góor mag juuf mi nga xam ne nii moo tax nag njaboot gi nag am dara nag ci sëriñ Touba màggal ga itam nag màggalug bëccëg la suñ demee ba bëccëg nag sëriñ bi génn nag ñu ñaan jàppaat bis bi nag déwén ñuy ñaan ca ka faboon léppam jébbal seexul xadim di sëriñ góor mag juufa yàlla na suñ borom nag yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem te guddal nag fanu njabootam nag mu fi bàyyi barke xéewal itam nag suñ borom def ko ci réew mi ci darajey nag mbooleem cheikh yi toppoon cheikhul xadim amin cheikhul xadim amin cheikhul xadim amin cheikhul xadim